asalaamaaleykum gars yi ñu ngi leen di ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare di leen laaj mbaa yéen a ci jàmm ñun ñu ngi ci jàmm yal na suñu borom dolli jàmm tey nag dañoo bëgg ñëw ci benn secret boo xam ne si buy woyofal téléphone la boo xam ne si ba sa téléphone diisee ba nga xam ni pour nga utiliser ko da ngay appuyer ba sonn muy soor a nangu euh, secret bi boo ko ci defee bu soobee yàlla dina woyofal toy toy toy ko ñu suivre secret bi incha allah aywa. secret baa ngi nii da ngay ñëw paramètre boo duggee paramètre nga ñëw ba ci système boo ñëwee système nga appuyer ci système bi boo appuyé système dina la génneel euh, à du téléphone nga bës à du téléphone jii nii kon dangay déglu bu baax a baax li ñuy wax dangay ngay dugg paramètre ñëw système boo jógee système nga ñëw à propos du téléphone boo appuyé foofu nag lii la lay génneel lii nii boo ñëwee ba ci li ci suuf nag numéro de build xam ma anglais la xam ma waaye man france la ak mën a lire maa ngi ci jégalu bu baax mooy bii nii bi ma def bi ma def lu bulo nii boobu lañ soxla pour expliquer ci li expliquer gis nga numéro bii Eh, fi ngay jaare waaye da nga koy appuyer eh, téye di maanaam da koy appuyer di ko pressé di ko pressé di ko pressé di ko pressé di ko appuyer di ko pressé di ko pressé di ko pressé ba ba yàgg lii la lay génneel vous avez déjà un développeur léegi kon nga xam ne am nga développeur waaye développeur bi noo koy seetee da ngay dëppaat soo dëppaatee nga xool à propos ci à propos du téléphone option bi ci kaw option pour les développeurs xëy na am ko seetlu ne bi mu njëkkee dugg gisa gisoon naa fi développeur ji waayante dama ko activé woon déjà avant ma kii dama activé woon sama développeur ba pare moo tax waaye soo ko activé gul yow doo am accès ci biir léegi développeur bi daal mi ngi nii fi nga jaar fépp ngay jaar ba agsi fii nii gis nga développeur bi mi ngi nii option pour les développeurs option pour les développeurs ji nag soo ko bësee nii voilà mu génne la beneen menu menu bi mu la génne la da ngay wàcc da ngay wàcc da ngay wàcc da ba ci. Eh, échelle animation fenêtre euh, def échelle animation fois 2 x bi daal x daal def x2 léegi da ngay xool da ngay dugg ci bu njëkk bi boo duggee ci bu njëkk bi xam nga mi ngi ci deux euh, coché bi tomb bula bi mi ngi ci deux bi ci suuf da koy yéegal da ngay def désactiver nga dikkaat ci ñaareel bi nga def désactivé nga dikkaat ci ñetteel bi nga def euh, désactivé moom it xam ni trois yi yëpp benn ñaar ñett trois yëpp gis nga trois yëpp désactivé nga leen léegi amatoo ko fi gis nga ko désactivé nga ko échelle gis nga ko désactivé nga ko échelle bi désactivé nga ko léegi ma waxoon na ngay wàcc ba ci suuf nii ba ci forcer forcer le rendu GPS GPU loolu ngay activé boo ko activé nag saa léegi sa téléphone dañ ko mën a utiliser normal dix dix dix yi mu doon def yëpp da koy bàyyi tey teewut saa boo demee ba yëgaat ci ak euh, xaw a ak xaw a diis tuuti da ngay jaar fi nga jaaroon nga désin nga désinstallé ko nga redémarré téléphone bi nga réinstallé waat comme méthode bii ma la ko waxee nii incha allah su ko defee rek téléphone bi dina woyof incha allah aywa ñu ngi leen di tàggu fii ba beneen vidéo incha allah xam naa ne vidéo biy ñëw tamit eh, ku ko bëgg a xaar man nga ko xaar comme eh, yitteel ñu ngi ci fas yéene expliqué eh, soo bëggee nan ngay def ba mm, maanaam numéro boo xam si dafa nekkul ci ab téléphone. nga bàyyi ko sa kër nga masalan nga bàyyi ko Touba nekk Pointe Sarène ñu woola ci numéro ba ca Touba te nekkul ci téléphone nga wuyoo si Pointe saareen gii loolu tam incha allah dinañ ko defal vidéo spéciale boo xam ne si eh, man ngeen ko xaar en attendant ngeen abonné waale ci chaîne bi comme ça bu ko defee bépp vidéo bu ñëw rek ngeen mën ci jot salaamaaleykum wa rahmatullah